dafa dégg benn suuf yi daf ne dafa dégg jëmm jëmm ji wax ne dana jàng bis bu nekk ñetti téeméeri kaamil am kenn ku ko ne ah man de vingt-quatre heures yu nekk danaa jàng juróom-ñaar fukki junniy kaamil am keneen ku ne loolu xajul sama bopp loolu munta nekk mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko sëggal mu sëgg mu ñoddi nob bi ne jàng kaaf ak xëyin ne këx bi mu ne këx waa ji ne dàll di xëm bi mu ne ñokkee ñu ne ko lu la xamloo mu ne bi mu ne këx diggante alifu alif lam mim zalikal kitaab ba ci siinu minal jinnati wa naasi araf yëpp a riir dugg sama bopp sama noppi bëgg a duggaloo sama xol bi xaju sama xol bi bëgg a xott ko rek ma daanu di xam mu ne ko noonu laay jàng juróom-ñaar fukki junniy kaamil par 24 heures. fal yow man na yëftu ala sabina sëriñ Basiru nee na muy waxtaan ak sëriñ Daam Abdourahmane Lo mu ne ko fi ñu toll nii am naa juróom-ñaar fukki at yu tegal waaye du ma sonn wala aussi bi futuurin isa qumtu bil quran fii rakkaatayni ne ko kaamil alxuraan bi dama koy naafil la ci ñaari rakkati du ma ko yëg sax du ma sonn waaye lu mu ci teg walastu bi ajaba min Cheikh Ibrahima Fall allazi yaqumu bi xidmati cheikh wa xidmati almuslimina sëriñ Basiru nee na sëñ am Abdourahmane doo teg ca ne ne ko sama mbir kët bu mu la yéem sama mbir gënte yéeme gëru mbirum Cheikh Ibra ne ko xanaa xoolal Cheikh Ibrahima Fall li mu liggéeyal sëriñ Tuubaa ak li mu liggéeyal jullit yi doomi buur yëpp mu nosandoo leen buur yi nga xam ne li ñu fédd géewoo bëgg àdduna fecc mandi rek moom lañ mas a xam mu tàggal leen ba ñoom ñëpp sóobu ci yoonu siraatal mustaqim ñëpp di liggéeyal yàlla ak yonent bi mu ne ko booy seet loolu dara gënu koo yéeme kenn ku nekk ci ñoom dara yitteelu la lu dul defar sa bakkan ak laabal sa xol guddi ak bëccëg ak yëkkati sa yitte jëme ko ci suñ borom sàkku ngërëmal yàlla suñ borom tàggatal ko buur yi ak seen dag yi ak lim bu leen ëpp fopp ci murid yi suñ borom kàttanal ko mu mën leen a tarbiya sëriñ Basiir lu mu ci teg fa taajab naa min tabassurihi wa adami ruyatihi nafsahu fi amalihi fa shakartullah ala wujudi amsali haulaay sëriñ Basiir nee na ma dal di yéemu maa ngi ma toogaloon nee na ñu dal di yéemu ci sëriñ Ndaam mii ak Cheikh Ibrahima Fall mii li ñuy yéeme yéeme nee na li gën a yéeme gisuñu seen bopp lu waral loolu sëñ Ndaam Abdourahmane Lo def na ko maag Ibrahima Fall ak keneen yoruñu suñu doole de barkeb sëñ Tuubaa doo nga nekk ci suñu bor suñu biir duñu kondi nee na sëñ Basiru nee na li ko gën a yéem mooy ñàkk a gis gi ñu ñàkk gis seen bopp ci liñ doon def ah waaw waaw suñ borom ku ko gis dootoo gis kenn yàlla ku ko gis dootoo gisati kenn dootoo gisati lenn xoolal ci risaalatul Qushayri bi Abu Yazid al-Bustami bi nga xam ne Zunnun al-Misri yónnee na taalibe ci moom ne ko soo demee neel Abu Yazid nangam ak nangam mu ñëw Abu Yazid lay waxal bi mu naan Abu Yazid naan ko kuy Abu Yazid man maa ngi koy dégg moom laa bëgg a gis te moom mooy Abu Yazid taalibe bi rocc ku ndànk ne man kan ndekk ci ku nitoo di ku lañ ma yónni mu ñëw wax ko Zunnun mu ne ko boo ko waxati mukk da nga ko fekk ci maqamum xëy ba doom kooku fa mu toll yaa ko xamut nitoo di ko wul yaa xamul fa mu toll ci yàlla waaw ku ko xam xam nga ko ku ko xamul xamoo ko waaye gaaw a àtte loo xamul moom wóorul de wa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhin fa yalqa mihana li anna man addima shaykhan mursida fa shaykhoo shaytaanu haytu qasada mu ne taxawaay boobu Cheikh Ibrahima Fall taxaw diiru Sëñ Tuubaa nekk ci tukki bi it taxawaay bu rafet bu mel noonu it bu gën a doy waar sax moom la taxawee bi Sëñ Tuubaa demee ci tukki bu gànnaar bi mu demee tukki bu gànnaar moom àgg na ci jëflanteeg benn tubaab tubaab boobu am na ñu wax ne liwi la tudd tubaab bi dafa am ndombal tànk lu mu bëgg a falu ci ngiru français di nekk Sénégal ñëw ci Cheikh Ibrahima Fall ne ko yow de bëgg nga sa sëriñ bi ñibbi si lool mu ne ko waaw mu ne ko damaa bëgg a falu ndombal tànk sàngam boo ma ci jàppalee ba ma falu ko danaa defi pexe danaa utiliser ndombal tànk loolu ba sa sëriñ bi ñëw Ibrahima Fall ne ko ak xalaas am Cheikh Ibrahima Fall ne ko xalaas kon de bu soobee yàlla da nga falu ñu toog ay fan tubaab bi fol Cheikh Ibrahima Fall ñu ne ko hé hé gor ca wax sa gor ca wax ja ak xalaas gor ca wax ja tubaab bi def kër kër kër kër ba ne ko ah léegi danañ indi sa sëriñ bi waaye nag duñ ko may mu nekk ci ville yu mag yi dañ ko yóbbu ca àll ba ca Jolof mu ne ko ba tey na ñëw ci réew mi rek ñu daal di signé daal di daal di signé décret bi Cheikh Ibrahima Fall dal dal di jàll jaar ci gaal yi wuti wuti gànnaar ba mu ñëwee fekk Serigne Touba xomaak Serigne Touba moom bi ko tubaab yi ne ñibbisi it moom daanaka moom yëgalu ko boppam sax ndax moom yëgul fu yëgul yëgul yëgul yëgul gànnaar ak Sénégal ak géej gi yem ci moom man Bamba daal fu dul fu yàlla nekkul mbaalu mu wuute loolu daal laa nekkul moom fu mu nekk rek moom na fa nekkal yàlla rek nekk ak boromam rek Cheikh Ibrahima Fall moom mujj ne ko nag sëriñ bi gànnaar gii defoo fi dara ci naar yi takkal bagage yi te dellu ci réew ma tam tàmbalee takk bagage yi ba sëriñ Tuubaa ànd ak taalibe yi xoolal sëriñ Tuubaa loolu sax daf ñoo taxut a jógit ba tey rek waaye bi sëriñ Tuubaa di ñibbi si jóge gànnaar yoon bu kiimaane la sëriñ Tuubaa daf dafa dafa jël gaal goo xam ne gaal gi jàngkati alxuraan yi dong nga ciy nekk mu ne bu leen ci kenn fekk mu ne ñooñu nañu ne ci kanam di wàccee kaamil alxuraan yi ñoo ñoo jiitu geneen gaal gi koy féete ginnaaw ñu jàngkati xasaayid yi dong nekk ci mu ne xas xasida yi daa war a topp ci ginnaaw alxuraan moom mu nekk ci diggante alxuraan ak xasaayid gaal gi mu dugg mi ngi ci diggante ñiy jàng alxuraan ne ca kanamam ñiy jàng xasaayid ne ca kanamam ñiy jàng xasaayid bi seenu gaal gënee gaaw sax dem bay bëgg a tolloog ñee daf ne leen taxaw leen ba may ñee ñu jiitu leen léppam da koy teg ci sunna ak jiital li suñ borom jiital sëriñ Saliou Niang moo ñu nettali nañu Cheikh Ibrahima Fall moo leen ne moo leen nettali ne leen jamono yi may tarbiye wu dey bis natt naa sama doole damaa dem taxan sayu mat di taxan di taxan di taxan ba say wi tolloog man nee na ma takk ba mu dëgër sëpp bëgg a yëkkati say wi bëgg a yëkkati yëkkati mu tëma Cheikh Ibrahima Fall tekkiwaat buum ya tekkiwaat xànc ma dem xànc buum gu toll noonu dolli ca dem dem dem goraat say wu ni toll boole ca nga gis loolu say wi mu takk munu ci dara mu dem takkaat say wu ni toll boole ñaar yëpp nag fas ko yéene yëkkati takk ko ba mu dëgër mu fexe ba taxawal say wi suñu saal yi ñoom nee na maam Cheikh Ibrahima moo leen ko nettali nee na mu deltu ginnaaw ba sori say wi joxor bi ne ko ne ko xalaas ni bàmmeel di tënc bi yéefar ci ni bàmmeel di tënc bi yéefar ba mee moom nampoon ca ndeyam di génn feeg defa ma noonu daa la yóbbu sëñ bamb naka la ne ñaadam ñaadam ba mu ko dee cas nee na daa wax ne wu xob mu teg ko ci boppam waaw keroog xasootu xaybar jàng ngeen histoire yonent bi xasootu xaybar surtout porte bi tata ji ñuy wax sulaalim ak watiix watiix watiix saxaaba yi juif yi xam nga dañoo masal mën a tabax ay tata man plan de guerre bunt bi rëy na diis na diisaay goo xam ne ñaar fukki nit ñoo koy puus mu tëju ñaar fukk a koy puus mu tijj ko ñaar fukk wala fukk ak juróom fukki nit sax mënuñ ci dara sallallahu alayhi wa sallam sayidna abou bakar song song mënut a ubbi tata ji ñu jox omar omar song song mënu ci dara sallallahu alayhi wa sallam ne nañ dallu ñu dallu mu ne buñ xëyee suba danaa jox drapeau bi ku yàlla sopp yonent bi sopp ko wala ku sopp yàlla sopp bi yonentam saxaaba yi kenn ku nekk na yàlla nay man sallallahu alayhi wasallam xëy rek daal ne ay na ali ibnu abi talib ñu ne ko déet ali yu daa wànnit mu ne na ñëw bët yaa ngi xonk coy sallallahu alayhi wasallam ñaan taf li ci bët yi jël bopp bi dëpp ko ci bëtu wóom bi ni ko siggil mu siggi mu jox ko jaasi ji ni ko ubbil tata ji luy xàq jaasi ji mu ne ko tey na xeex ak ñoom bay mel na ñun mu ne ko déet la an yahdiyallahu bika rajulan waahidan xayrun laka min humri naam nga fexe ba tuub loo benn waaye mu dugg ci diine moo gënal yàlla jur gu xonk cooy yàlla soxlawul alal jëmm ju ko gëm la soxla Seydina Ali bu mu àggee ci buntu tata ji moom dong moom Aliyu moo ne jas bunt bi ni ko yëxeex ni ko buuxeer sànni saaba yu topp ci nee naa la demal ci jaamee karamatil awliyaay ñaar fukki nit ñooy tëj bunt bi ñaar fukki koy tëj fukki nit ba fukki nit ak ñett fukki nit ak ñeent sax mënuñu ko tëñ ba ñut kenn nit moom buddi ko sànni Cheikh Ibrahima Fall takk aw say mënu ci dara mu yokkaat ci say wu ñu nekk moom it wàqanteeg moom lu mu doon mbirum ruu Seydina Ali ne ko waaw ñu ne ko lii lu mu doon mu ne wallahi maa fataxtu baaba xaybar bi quwatin jasadaani wala ki bi quwatin rabbani giñ naa ci yàlla ni ubbi wu ma buntu xaybar ak doole yaram waaye kattan gu bàyyi ko ci péeyu yàlla balaa ko ubbee kon jëlal loolu xiyaas ko fii booleet loolu yëpp caaxaan du ko jege de Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi léegi la rajax rajax ji bare rek ku nekk jël ay buum takk ci sa tànk rajax rajaxi lu nekk def sa lu nekk ne Cheikh Ibra Cheikh Ibra waaye caaxaan daawu ko jege sëñ Saliou ñang nee na Cheikh Ibrahima ngi woon asiyat su toll nii bu digg bëccëg jotee rek ba njolloor jot nii la koy gàddu rek woo ko straat di yëddu góor ñi góor góor ñi nekk ci biir kër jigéen ñi demu di di paccax paccaxi demuñu liggéey nee na bu la fekkee ngay paccax fa dalay doxe ginnaaw rek ne la ko tay ci ginnaaw rek nga ne bërët ak sa biñuwaar fal xoog say yëre rek mu ne aja ca tool yi aja ca tool yi sama kër gu neex gi ca tool yi sëñ Bamba yàllaa ko jël dem leen ca tool yi góor ci biir digg góor ci digg kër bëccëg di paccax paccax xel xalaatu ko woon kër Cheikh Ibrahima Fall ah xoolal ñi Cheikh Ibrahima Fall yaral boppam rek ñi mu yaral boppam ba jafal leen ba ñu jàpp ah man de man de ñi ma xam ci ñi Cheikh Ibrahima yar bariwul waaye kenn de laa ci xam kooka de moo ma yar man de ci laa xamee ne Cheikh Ibrahima Fall caaxaanul fawul caaxaanul fawul faluwul jamono yi nga xamee ni bii ñi ngi liggéey kër sëñ Abdoul Ahad gii kër sëñ Abdoul Ahad gii nekk nekk ci pencum Touba xam nga liggéey bu njëkk ba moom ay sàkket la woon ñun ñu dalaloon ñun ci kër sëñ Modou Mamoun gi xam nga kër sëñ Modou Mamoun gi boo ñëwee bi ci koñ bi nii fi la nekk ñaa maa ngi fàttaliku duus bañ bañ doon toj foofa garabu Dakar ga fa nekkoon dañ doon yenoo xeer yi di génne ñun néegub sëñ Modou Aminta la ñu sase woon ñax mañ ko doon xadde ñun lañ doon boobi ñu ngi ko doon boobi ci àllu ndindi ba kër gi yépp dañ koo sàkk doon def koy fetañ ko jege waaye su nga jam fan yooyu ñu nekk ci kër sëñ Modou Mamoun bi boo duggee sëñ Modou Amin kaa ngi dalee nii sëriñ Saliou ñang tafu nii ci moom sëriñ Abdoulaye Fall Ndar nekk na le tàkkusaan dafa jot sëñ Saliou toog nii seen ay gone yu jigéen yu ndaw seen i waajur sol leen ay robb yoo xam ne fii la war a yem waaye dañoo jëkk ci kër dégg tël sëñ Abdoulaye Fall Ndar ne loolu mu doon loolu mu doon xale yu yuuxu ñu ne bàyyi saali ñang la de bàyyi saali ñang la waaye xam nga lu mu ca tega ku fi génn romb mag col gu gàtt rek ma def noonu tey ngeen xam ne jaam bu yàgg ci ngàllu gi sañ naa jubanti doomi sang ba ci moom laa xamee ne Cheikh Ibrahima Fall këram caaxaan nekku woon foo nekku fa woon dëgg gu wow koŋ gu leer naññ moo fa léegi nag lañ toll koo xam ne fi ñu toll sëñ bi ko am say caaxaan sax ne say caaxaan sax ne jox naa ko àddiya Cheikh Ibra lam yusir li muridihi ila tabaruki bi wa taasimi xaalihi walakin baharu nuura tahaquqihi bil xaqaiq al qudusiyati fahaamu bi Sëriñ Basiru Mbàkke nee na Sëriñ Tuubaa mos sa wax benn taalibe ne la kaay war maal ma ak di ma màggal lu waral loolu ñuy kër këri fu ñu gis Sëriñ Tuubaa leeruk suñu borom ko yandeer ci moom ah sëriñ bi leer kum ne tàyyi ci say bët nga gëmm wala nga daru doo ànd ak sa sago te leer gi sant la ko moom noonu la misaale sëñ Tuubaa waaye gis nga lim ci teg mooy li gën a doy waar sëñ Tuubaa bi ñu ko laajee ne ko war ma ji ñu lay war maal ak di la màggal nag mu ne ki ma ko njëkk a jëfal mooy Ibrahima Fall damaa ànd ak moom di tukki ci biir Kajoor mu tàmbali su ma jàppee mu taatan jàppee mi di ko naan te Ibrahima Fall mos ta gis ku ñuy defal lii mosu koo jàng ci benn téere waaye lu waral loolu ndegam moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ daan defal yonent bi faaw ñu defal ko ko ñi jàng histoire ñëpp xam nañ ko ñi jàng kat ku mel ne sëñ Ahmed Diop mi ay jàngkati arab la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga keroog ca amal waxuma amal Hudaybiya waaw kay amal Hudaybiya la kay ca umratul xadaay umratul xadaay laa wax ba nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa dugg Màkka waa Màkka ni ko doo ko dugg doo fi dugg ñu yebal Budayl ibn Warqa yebal Urwatu ibn Mas'ud ba Suhayl ibn Amr ñëwee te doon jebbat wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ila axiri ila axiri yi ba urwatu nu masoo delloo màkk lu mu leen wax mu ne leen gis naa négis gis naa kisra dégg nga gis naa kaysar buurub rome yi buurub éthiopie buurub perse yi kenn ku nekk gis naa la waaye musumaa gis Muhammad niñ ko màggale musumaa gis benn buur bu ñu màggale noonu Muhammad bu xaaxtandikoo ñu njëkkante ko bu watoo ñu njëkkante kawar bi bu dee jàpp ñu njëkkante njàpp mi di ko naan ak di ko diwoo sëñ Tuubaa ne ki ko njëkk a jëfal loolu mooy Cheikh Ibrahima Fall te booba dañoo àgg ànd di tukki ci biir Kajoor bi mu fa taataan jóge Serigne Saliou Niang nee na dafa toog ci kanamu Cheikh Ibrahima Fall di dégg muy dénkaane bokk na ci lim daan dénkaane dana toog ba he he ak xalaas jin laa ngi ci kaw taal bi de cin mi ngi ci kaw taal bi ma ne ku xam ba rek mu bax tuur xanaa xam ba kat bu mel ne Ibrahima Fall rek mooy jafe nee na daan na toog yàgg mu ne he he jàngal leen xale yi sharia ndax man kat sañ-sañ laa yore te sañ-sañ du wéy nee na daan na toog ba yàgg mu ne buñ demee ba ca kanam gone yi dañuy wéyee sañ-sañu yoon wi te duñ jëfe-jëfe yoon bi su boobaa ndab mi dab leen daan na toog ba yàgg mu ne ak xalaas ginaar gi dana mës a yóbbu de saa su dee yóbbu ci digg màndik lay yóbbu te saa su yóbboo ci buróot bukki forme bokk na ci lim daan dénkaane xeexee ah doom at yi xool leen bu ngeen koy jox at yi koo ko jox fu mu ko sànq fa la sa xol di jublu bu ko jëmee ci àdduna àdduna ba ngay nekk ci sa xol bu ko defee ci yàlla yàlla ba ngay nekk ci sa xol ah doom kon xool leen àddiya fu ngeen koy joxe. kon xam naa rawaman sax data xaalal abdi wañu noo xataasa kulla maj bi Cheikh Ahmadou Bamba neen bari yaa na nga ñaaw lu mbirum waa ji te fekk ne teraanga yépp a ngi yàlla def ci biiram laa tastaril abda li xubxil malbasi maa taxadul wa kusri dana si Cheikh Ahmadou Bamba nee na bul xeeb jaam bi ngir col bu ñagas bul ko xeeb ngir yaram wu ñagas ak yaram wu tilim bari yaa na waaju kaw gi ñagas lool te mu fees dell ak leeri suñ borom sallallahu alayhi wa sallam moo ne ruba as asa ak barasi timrayni laa yubahu law law aqsama ala llaahi la abarra yonent bi nee na bare yaa na waaju kawar bi juxur yaram wi tilim mu sol sagaru mbubb sagaru tubay te lu mu waat yàlla fekk ko ca lu mu waat yàlla fekk ko ca Serigne Saliou Niang moo ñu wax ne toog nañ ci kanam Cheikh Rahim Fall toog ci ab piliyaan nii jékki-jékki daraa jëm sol tooy xëpp xëpp ak ndox summi daraa ji ñu wañaar ko ndox ma daanaka fees fees na ab kalam ñu ne kenn kenn xamul tooyaay bi ndox yére yépp tooy mu ne xalaas taalibe sàngam diw sàngam moo doon bëgg a lab ci géeju ndar gii kat waaye ba mu jaaxlee ba mu jaari ci suñu tur ba mu jaari ci sama tur woo ma moom laa doon xett li ci biir géej ga sëriñ bi ndax kii tollu fee woo kii xet li ko nii yaa koy taxaw ne ko dangaa bokkaale yàlla te moom mu gis lii moom dangaa war a laaj lii kay danga yaa war a seeti sa njàng yow nooy dégg lii ak lii fu mu tege demal ci minahul miskiya fil qawaarixil bakiya bu sew lun jub dagana abou bakar diouf jóge na saalum jëm si jurbel ci biir booba gaynde yi bare na sénégal ci biir wenn xur genn gaynde ne ngar rugul si ko Aboubacar Diouf dara ay noppam yaa seexal xadim yaa seexal xadim ñetti yoon mu dégg mbol de bu ne tër gaynde gi mu xool gaynde gi di wéqu deret di sànni nee na mbol de gi cosati na mbaggam nii ba mënatu koo yëkkati sarax mu dégg kàddu gu ko naan duuna ka kaana yuridu bi ka xattan fukkute la mu nga daf laa bëggoon a rey reyal nañ la ko yaa seexal xadim la wax ñetti yoon de est-ce que kooku boo ko ne yaa ngi bokkaale yàlla moom moom sëriñ bi daf naan la yow nañ seetaat sa njàng bi yow xool nga sëriñ ñett la kii bi sax du àgg nañ wax jëtti sëriñ yooyu rek te te ñaan ndax nee nañ waxtu julli bi mi ngi kii xoolal sëriñ ñett la sëñ tubaab moo ko wax dafa am ku bind lettre Cheikh Amadou Bamba mi ngi ci hikmatu Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bamba boobu dafa am ku bind lettre sëñ tubaab ne ko ndax taalibe sañ naa am sëriñ ba yàgg mu wàcc ko fa wuti waa beneen sëriñ sëñ tubaab ne ko bala ma lay tontu sa laaj bi dafa laaj beneenub laaj bala ma lay tontu dama lay tontu leneen ne ko sëriñ ñett la cheikhul taalim cheikhul tarbiya cheikhul tarqiya kan mooy cheikhul taalim mooy professeur bi war a jàngale am na ñetti condition na am xam-xam bu leer bu tege ci alxuraan ak sunna na nekk éloquent nekk benn fasih baliix du la wax mukk ngay sikki sàkkalim la bëggoon a wax na am ragal gu toll gu ragal yàlla gu toll lu mu xamul ne la xaw ma ko nga laaje ko keneen xam nga ki la ne xaw ma ko moom yewi na la waaye boo ko yaakaaree wóolu ko mu rëy rëylu xamul ba noppi ne la nangam ak nangam sànq na la ñett yii mooy condition ki war a jàngale ñaareelu sëriñ bi mooy ban mooy seyku tarbiya seyku tarbiya am na ñetti sart bu la nee jàkk na xam ban feebaru xol nga yor moo xam da ngaa fuqale wala da ngaa bëgg daraja wala da ngaa tayeel wala da ngaa feñaat bu mu ci xam docteur bi faaw mu xam feebar bi nag soo ko xam pikir bi mu lay jam nga wér lu ko mooy dana làmbatu ba sonn dana la gaañ lu ne dana la ko def bu la nee jàkk na xam ban feebar nga yor na xam nan la koy dindee ci yow na xam nan lay lay xinyaa nu mu lay protéger ba feebar bi du ñëwaat ci yow boobu sëriñ jàll na mooy seexul tarbiya boobu sëriñ mënees naa jébbalu ci moom sëriñ bu njëkk benn kenn du jébbalu ci moom waaye booy jàng demal ca moom nag sëriñu ñetteel bi mooy seexu tarxiya mooy géej gi am na ñetti sart sart bu njëkk bi mooy foo ko ne jàkk fàttali ko yàlla loo fàtte fàtte yàlla boo ko ne jàkk rek yàlla teew ci sa kanam teew ci sa xel saa su àddoo sa yitte yépp day buur ci jëm ci suñ borom ñetteel bi mooy lan fu mu nekkul yàlla wuutu ko fa fu mu nekkul yàlla wuutu ko fa mooy dara ji sëriñ bu mat sëriñ yow moo doon sa bunt ci yàlla dañ koy woo gëmuloo ne moom mooy yàlla ji nga xam ne moo sàkk jaww ji mooy teew foofu waaye ndegam suñ borom gëm na ne mooy sa bunt ci moom dañ ko bi nga tiitee ba woo ko suñ borom mooy ñëw wuutu ko fi mu newul jàngal xëkk ma noonu la ko sëriñ Tuubaa leeral fu mu nekkul yàlla wuutu ko fa wali yi ñu wax ibnu ata illaahi benn taalibum dafa aji màkk di tawaaf ci kaaba bi séen ko bëgg a daw nuyu ko mu réer ko ñu dem ba jabalu arafa mu séen ko bëgg ko nuyu mu réeraat ko mu ñibbi si ñëw Irak ni ko sëriñ bi man daal fu ma la gis rek màkk bëgg laa ziyaare mbooloo mi dox suñu diggante ah fekk taalib bi bëgg néeg bi mu ngi ci kër gi moom ne ko waaye yow looy wax nii sëriñ bi maa ngi maa ngi maa ngi ñoo fi nekk ñetti weer yi yëpp nga naan sëriñ bi dem màkk yow da ngaa gént xamoo ki nga gis mu ne ko waaye yow jëmal fële yow yaa xamul ki nga fi nekkaloon waaye man nag sëriñ bi ne leen ni leen ni tey tey leen ñu tey mu ne kii maag yow a fi nekkoon mu ne ko waaw mu ne ko yow maag yow a nekkoon màkk di àcc arrajulul kabir yam la ul kaw na walaw duiyal xut bi bi xajarin la ajaab jëmm ji ruuxam day sell di màgg di màgg ba nga xam ne esprit bi day dominer matériel bi boo ko woowoon ci aw aw doj sax mu wuyu la ci fa fil xëy bi asrarun walillahi hikmatun foofu moom ay mbiri mbiri mbir ma nga foofa ci ginnaaw wàllu ruu bu demee ba sell day mën a teewandoo fi barab yu bari mën a jàpp te du fàtte mën a def ay tasarufaat yoo xam ne xoolal borom alfawsu wa najaat boobu wala yu nga xam ne bis bu nekk ajjuma ju jot mu jiite fanweeri jumaa ci benn heure te du jiite fii dem fee jiite fee dem fee même heure mu jiitee ndoo fanweeri jumaa te kenn nit la waxoon nañ ko keroog bi ñu yóbbu si Amadou Bamba ba Congo taalibe yi nekk ca taaxu ndar ma seen ko mu di leen wër te booba ma nga ma nga ma nga ca po pooru Congo Belgique di mata bi an saaniyen ti daaw nat bin xatit jumlatama laaqat naxu mata di sëriñ bi kon ñu ngi yemale kàddu yi fii sëñ Fallou sëñ sëñ Assane ñu ngi leen di ziare ci seen guddi seen guddig maam gi di leen xamal ne situation waxtaan yi ni mu bindoo xam naa moo waral fenn fu nekk dama faa jéem a sànni sama loxo baa nag aw ba benn figure bu correct xanaa ñu jéggul rek ñaan bu beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu